Euh, cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi safoo internet bi di net bi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doo rek mbir mu doy waar moom moo daal di xew euh, niki démb rek fi nga xamante ne rek moom mooy ca Liberté 6 maanaam euh, guddik altine jàpp talaata yemoo ak fanweeri fan ci weeru janvier 2024 nag ab étage boo xamante ne rek trois immeubles la moom moo daal di rek daanu ca côté Liberté 6 waaye nag mbir mu mi ngi xew rek niki démb ci guddi gi jamono ji ñuy wax ñi di sapeur pompier yi nag mënaguñoo def ab jàpp bilan wayda jamono ji nag ña ngay xam ne rek ña nga am ñaar fukki nit ak ñett yoo xamante ne rek affaire bi dal na seen kaw ci ñoom nag ñett doomu aadama rek daal di nañ ci ñàkk seen bakkan nag am na ci benn nit boo xamante ne rek moom moo fekkee yëf yi sur ne ne ñu des ñu ngi leen évacuer fi nga xamante ne rek moom mooy ci structure sanitaire bu capitale bu Ndakaaru ba tey bu ñu sukkandikoo ci Martial Ndiol commandant bu groupement groupement d'incendie ak secours numéro un bu jaune bu Dakar ne ne nag jamono ji am na ci ñeenti nit yoo xamante ne rek mi ngi ci biir chantier chantier bi maanaam daal eh, gis eh, guñu leen waaye nag lépp lu ci munti doon lekk dinañu woyandil eh, seen boobulee enquête jamono ji nag xamaguñ nag lan moo tax boobu boobulee immeuble daal di daanu waaye nag ab enquête rek dinañu ko ubbi pour xam rek mbir mi fan la jógee ginnaaw rek kat yi nga xamante ne rek kii di sapeur pompier yi ñoom soldat yi fa daal di nañ koy yëkkatee jërë ngeen jëf ci teewlu bi mu leen fatte abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen